sëñ bi Mamadou Sy Albert ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Jacques. yow taskatu xibaar nga sa xam-xam màcc ci wàllu politique rawatina ak yow kon dañuy waxtaanee eh, wootee gu mujj gi parti démocratique sénégalais daal di def ngir kon ab manifestation bu opposition bi yëpp eh, ci Sénégal ngir kon ŋàññ doxalinu njiitu réew mi Macky Sall tey ban gëdd la ñu mën a jox woote PDS boobu. waaw xam nga PDS moom PDS yàgg na yàgg na ci ci géew politique parti boo am expérience la euh, ñu am tey jii boo xooloon taxawaay opposition bi ñoo ëpp député ci assemblée donc parti boo am expérience parti bi nga xam ne aussi xam nañu que ñoom am nañu coalition wàllu am na lu ñu am ci élection locale hmm. ñu ngi waaj élection législative comme opposition comme nguur gi hmm. PDS xam na ne que Euh, su deful euh, manifestation soo moytul lu ñu euh, lu ñu naroon am ci élection locale yi mën mën nañ ko bañ a am ci élection législative yi donc loolu tax mu ngi def mobilisation pour positionner wala nekk moom mu ngi ci opposition bi wala nekk dafa bugg opposition yëpp booloo xeex nguur gi donc loolu parti boo am expérience bu bëgg nekk dafa bëgg nekk leader opposition bi wala mu bokk en tout cas ci leader opposition bi ñi nga xam ne dinañu xeex pour gën a préparer élection législative. Mhm. waaye ndax woote boobu da nga yaakaar ni sénégalais dinañ ko jox euh, gëdd li ko waral mooy ay bis ci ginnaaw ñu ngi doon laam-laamee euh, dajaloowaat muy retrouvaille famille libéral bi te ñoom waa PDS bañu ñu ko woon tey ñu war a woote di fësal seen taxawaay ci opposition. waaw xam nga presse de expérience politique bi mu am mooy mooy mooy wane ne que moom xëy na xëy na am na ñi nga xam ne yaakaar nañu famille libérale yi de de juboo nekk benn benn mouvance présidentielle xëy na am na ñu bëgg a gën a jege président de la république am na ñu ñu ñu ñu koy wax wante PDS xam na ne que loolu suñ ko amul depuis de Macky bi mu falo bu tey ji wóorul ñu am ko fii ak ñaari at yu dese mandat président Macky Sall loolu tam même su fekkente ne bokk na ci ñi nga xam ne bëgg nañu famille libéral bi nekk benn ñoom xam nañu que loolu dina jafe am lu leen dese mooy xeex donc ñu ngi diggante waxtaan ak nguur gi ak xeex loolu moo moo yàkkal PDS lu bari boo gisee bi mu perte pouvoir 2012 ba tey ji mënuñu wax ne PDS mu ngi ci pouvoir wala mu ngi ci opposition mu ngi ci diggante bi et loolu baaxul ci baaxul ci parti parti politique bi nga xam ne euh, bu mel ni PDS un grand parti bu mel ni PDS warul euh, waroo nekk ci ci doute waruñu dañ la war a xam dañ war a ràññee. Hmm. wala ci nguur nga bokk wala ci opposition nga bokk sénégalais loolu la xam. mais bu njuuj njaaj euh, euh, loolu day wàññi seen doole bu bu baax a baax. ak lu mu ci mënti doon góor gi moo woote ndaxam woote gi mën nañu njot ni kon géopolitique gi ci Sénégal dina yënguwaat. waa dina yënguwaat parce que bon PDS loolu loolu mooy Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade moom mooy bu dee dañu wax rek ci expérience politique bi ñu am euh, xam nañ ne que la rue moom comme li ñu ci wax mbedd bi Abdoulaye Wade moo ko moom Abdoulaye Wade génnoon tey ji woote ñëpp dañuy dañuy wàcc bon loolu yàlla moo ko may expérience politique moo ko may euh, donc euh, euh, su PDS woote mobilisation fekk Abdoulaye Wade taxaw na direction bi taxaw ñu mën a waxtaan ak opposition bi c'est sûr et certain que PDS moom am na expérience mobilisation population Euh, léegi ci euh, oposition bi ba tey euh, gannaaw élection locale yi boobu ak léegi daanaka ay bu yàlla sàkk ñu gis ay maire yi kon falu ci bañeerub yeewi askan wi rawatina yuy màbbeeku dem fekki njiiti réew mi ak ñi mu àndal loolu lu muy jural oposition bi tey a ah, loolu moom baaxul ci opposition baaxul ci opposition baaxul même ci président majorité présidentielle bi ñu génnee ci ci Euh, élection locale bu mel nii élection locale bi ñu bu ñu passé nii te ñu waxoon ne que léegi changement bu gën a rëy ci suñu loi électorale mooy maire bi seen euh, électeurs yi ñoo lay tànn ñu wax loolu ba ñëpp dégg ko ñu def élection deux mois après maire yooyu dem rejoindre président de loolu mooy que baaxul ci pouvoir bi baaxul ci opposition bi parce que loolu mooy Euh, moo mu ko waxee daal mooy foo foo ak population bi hmm. parce que mënoon leen wax ne lii mooy lu bees lii mooy lu dëgëral di renforcer di démocratie nga woote ba pare après yow nga teg loolu ci suuf loolu baaxul ci pouvoir baaxul ci ci opposition li muy wane aussi mooy que euh, maire yu ñu tànn dem deux mois après nga dem ci président mooy ñooñu dëgëruñu du ñu maire Ah, maire dëgg-dëgg hmm. mënoo jaay sa bopp jaay sa askan hmm. ah, mandat man nga am xaaral bu mandat bi gës jeex soo buggee def leneen nga def ko mais en cours de mandat euh, bu dee politique dëgg-dëgg rek la ñuy wax euh, mënoo mënoo jaay sa bopp ci biir màndaa bi li nga mën mooy mooy nga démissionné nga bàyyi mandat bi nga dem defi ci leneen léegi euh, parce que yëf yi dafa mel ni du fi yem. ci ay kàddu njiitu réew mi am na yeneen maire yu opposition nekk sax ci ndakaaru yi nga xamante ne dafa jàpp ni dañ ko war a fekki si. Ah, loolu moom moo ban jàngat lañ ciy def waaye tamit ndax opposition bi tamit dina dese dara. waa opposition bi dina dese dara. bon euh, wante euh, bu dee dañuy analyser Macky Sall ak APR ak Benno lu ñuy def ñoom la ñuy wuti doole. fi ñu nekk nii doole bi ñu xam ne bëgg nañu gagner élection législative wala présidentielle deux mille vingt quatre xam nañ ni collectivité territoriale ci la bokk donc soo amee maire dina la yokk sa doole pour nga dem ci élection législative wala présidentielle Macky Sall xam na stratégie boobu fépp foo xam ne mën na jël maire dina dem jëli maire boobu fépp foo xam ne mën na jël chef de parti dina ko jël donc moom ci rassemblement la bugg mu def consensus muy benno ak euh, chef de parti ak lu koy loolu moom loolu mooy objectif Macky Sall boole ñëpp euh, ñu nekk benn moom mu diriger coalition boobu waaw mais opposition bi xam na ne xam nañ ko loolu du sotti du du sotti buñ ko continuer nii mënuñu gagner législative mënuñu gagner présidentielle deux mille vingt quatre parce que euh, sénégalais wone nañu ñoom ànduñu ak transhumance Mm-hmm. ku sanctionné Idrissa Seck sanctionné Moustapha Niass euh, sanctionné di ay leader politique ñi mel ni Balde mais xam nga ni loolu ay maire yu euh, yu commune euh, de de de Grand Dakar wala wala wala wala wala Wakam du ñu jaaxal électeurs yooyu donc président bi su moytu moom moo nar a juum ci stratégie bi. Hmm. ndax moom am na jàngat yu mu def dëgg-dëgg ci mbir mi parce que tamit euh, ni nga limee euh, opposant yi fa nekkoon ñëw fekki ko yëpp daanaka dañoo ñàkk fi nga xamante ne euh, xel mu noon xalaat sax ñu ñàkk ko. waaw dafa juum dafa am dafa am ti politique. Ah, ah, am na am na am am na am na aussi. Hmm. man mën nga am sax stratégie bu baax. mais opposition mi gën la am doole gën ëpp euh, euh, tane la ci stratégie. Hmm. defe naa président moom ci njuumte la nekk. stratégie bi mu jël moo baaxul nga euh, soo xoolee ku nekk ci nguur sa doole mu ngi war a tegu ci sa parti. Hmm. Hmm. doole président Macky ci APR la waroon teg loolu mooy moteur booy gouverne mais boo xoolee APR tey jii bon. du du parti sax mënuñu wax sax APR parti amuñu doole boobu. Hmm. am mënu parti bi nga xam mënoo gagné mairie Dakar mënoo gagné parcelle mënoo gagné Guédiawaye bon nga xam ne loolu doo dëgg-dëgg doo parti présidentiel. Hmm. amatu amatuñu doole boobu defe naa président foofu la juumee parti bi la waroon taxawal parti boobu nekk moteur bennoo ku mën a ñëw ci yow jokkoo ak yow. Hmm. loolu mooy loolu mooy pouvoir loolu mooy loolu moo moo mooy tax nga am partie bu am base ci mairie yi ci quartier yi ci gox yi. Mm-hmm. mais malheureusement bon stratégie bi mu jël euh, dafa mel ni euh, moom chef chef yi la la soxla. Mm-hmm. gisul base bi. et politique boo defee erreur boobu bon toujours euh, askan bi daf lay wone que que da nga juum te ànduñu yow. ndax léegi tamit àndandawam yu njëkk ya ci bennoo lu ci mel ni AFP ak PS ba léegi amal nañ ko njëriñ. ah en tout cas bariwul bari bariwul bariwul ànd nañu euh, fukki at ak benn euh, lu ñu wone mooy que doole AFP ak doole Idrissa Seck ak ak PS en parti allié yi mu am euh, amatuñu doole bi ñu amoon ñu seen doole wàññi ko baax a baax léegi nag président muy wuti doole. bon léegi lu muy wuti doole dafa xaw a dina dina dina dina diis ci président dina diis ci majorité bi parce que euh, transhumance moo mooy mooy seen euh, lu nar gaañ mooy transhumance transhumance c'est que sénégalais ànduñu ci lool mm-hmm. ah su doon par par exemple rek euh, moom APR mu toog ak ak PDS wala mu toog ak chef de partie ñu def accord loolu Sénégal yi mën na ko nangu. Mhm. mais bu dee wor rek Sénégal yi mu musul ànd ak wor moom xam war na war na xam loolu parce que dund na expérience PDS. Mhm. dund na expérience PS dund na expérience am moom ci boppam. Mhm. waa Thiès ànduñu ak Idrissa Seck ki nga xam ne moom moo doon diriger Thiès pendant douze ans ñu sanctionné kooku. xam nga ne loolu normalement président waroon na en tout cas gisaat boppam. def évaluation euh, euh, euh, changer changer stratégie malheureusement Euh, changé wul stratégie hmm. nooy jàngatee monsieur li nga xamante ne moo jëm ci projet de loi bu ñu doon yobbu ci assemblée nationale ngir mën a yokk li mu député yi foofu waaye yëf yi nag mujjut a antu ndax amendement yi nga xamante ne moom la ñu dugal ndax danga nga jàpp ni. gal-gal yu gouvernement bi di teg la ak i pexeem wala bokk assemblée nationale moo jëlaat li mu moom maanaam di contrôler pouvoir ba lu ko neex rek du jaar foofu mu jàll. waa mun lay wax ni que euh, gouvernement bi sax li mu euh, junjoon que day yokk député yi opposition bi ak Sénégal yi mënoon nañ ci ànd parce que boo xoolee rek ci euh, Kër Massar nekk na quarante sixième département bu bees la donc loolu lu muy firnde mooy que député yi waroon nañ yokk donc yokkute bi ñëpp xëy na àndoon nañ ci wante démarche gouvernement bi mooy démarche bu moo indi problème parce que lu mel noonu da ngay am consensus ak opposition bi mais seetuñu consensus ñu dem assemblée mais opposition wane leen que ñoom du ñu voté loolu moo tax assemblée jëlaat euh, décision. mais ñoom ñoo am majorité bu opposition bañee voté sax ñoo ëpp majorité. ah voilà loolu mooy euh, dañu ragal. Hmm. dañu ragal ñu sanctionné leen parce que su fekkente ne voté nañu ñu yokk. opposition bi taxaw di dénoncer augmentation du nombre de députés loolu mën na mën na leen jural musiba ci élection législative hmm. donc dañu xam ne ne que loolu menace la euh, soo xoolee sax amendement biñ ko niñ ko defee euh, ama dañ def taf-taf pour génn ci hmm. ah donc loolu euh, dañu ragal dañu ragal sanction lool euh, loolu kot moo moo moo tax moo am amendement boobu. Mhm. Euh, député yi nombre bi euh, kenn augmenté wu ko. Ah, benn ponk bi ma bëggoon ñu yokk ci monsieur Sy mooy noo jàngatee ñi nga xamante ne dañ leen di woote société civile. te tey jii ñiy waajal seen bopp ci élection législative yooyu ñu dëgmal bokk na ci Malim Guy mari Sagna Boubacar Seye Horizon sans frontières xëy na ñeneen dinañ ci topp. waa xam nga loolu loolu loolu mën nañ ci jàngaat sur le plan politique lu bari lu bari euh, sénégalais yu nekk ci mouvement citoyen léegi xam nañ ne que ragatuñu politique yi que ay que sénégalais ñoo àndatul ak parti politique yi et loolu dafay xal yoon ci société civile euh, société civile xam na ne que léegi mën na dem mën na nekk maire mën na nekk député mën na nekk président de la république loolu échec politique yi politique yi dañu échoué loolu tax société civile gën a am doole gën a am yaakaar euh, su gi gi maris euh, su doon sogam day day taxaw euh, nekk leader d'opinion mais su gisee ne que moom mën na dem ci élection locale mu am wala mu dem ci législative mu dem wala mu dem présidentielle mu am ci mais day day day day day gën a am ambition c'est la même chose pour les autres mouvements Euh, mouvement société civile bon en tout cas jël nañu conscience que ñoom mën nañu bokk ci élection euh, loolu lu lu bees la ci ci Sénégal soo moytul euh, parti politique yi dinañ perte de confiance bu bu bëri su su dee électeurs yi ànd nañu ak société civile boobu. may ni kon taskatu xibaar nga ngay analyse politique yi tamit doyen Mamadou Sy Albert ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax Jacques merci beaucoup.